Euh, jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci géejawaay bu ngeen gisee fii nga xamante ne fii mooy gox bi nga xamante ne fii la Aziz Ndiaye dëkk fii la Baye Ndiaye dëkk fii la Sora Ale Ndiaye dëkk fii la njabootu Baye Ale gi ñëpp dëkk Masata ñoom ñëpp ñi nga xamante ne tey woo nañ ko ci ndogu ndogu bi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy def fas yéene berne ñi nga xamante ni ñooy jaamu yàlla yi ci koor gi ñuy ñaan rek lépp loo xamante ni def nañ ko ci wala sàkku nañ ko ci yàlla na leen ko suñu borom nangul fulal leen ko def ko ci réew jullit yi ak mboolem jullit dañuy ñëw dugg si xool taabal yi xool sañ bas mbir yi xool affaire yi ni mu demee bagage yeeg yu mel njaga doole njaga nuyu naa la waaw fay naa la sëñ Fallou mbaa yaa ngi am maa ngi sant bu wér kay. waa bi baa ngi nii ah. a di baal di baalu ñëpp rek si weeru koor gi waaw di baal ñëpp àq nag. di ñaan yàlla ma ñu koor jàmm. oui. noo dundee koor gi nooy wooree. waaw koor gi comme ni ko gars yi wooree rek. mbër dina woor. ah oui man damay woor wax dëgg yàlla. damay woor ma tey ñu ñëw fekk la fii ci bernde yi nga xamante ni euh, famille Baye Alé ñu ngi koy def ban taxawaay nga ci am. waaw gis nga dañ koy rafetlu rek ndax tamit ñun ay doomu géejawaay lañ tey bu ñu ñëwee gis ay waa doomu Guédiawaye di invité lii ñu dañu ñëw participer joxe suñu doole joxe suñu xalaat waaw depuis démb si guddi tamit ñu ngi fi nga tey dañuy togg ay ndogu di ko yóbbu si daara yi lu ma dix daara yoo xamante ne dañuy toggal ndogu leen ko leneen laa ngi nii gars yi dereese dañ koy bernde pour waa koñ beeg waa Guédiawaye ku si yàlla kii rek nga xamante ne affaire yi mooy loolu affaire daal ay xéwal dañ koy rafetlu daal la di ñaan yàlla affaire yi gën a jëm sa kanam rek sa kaw sa kanam si lu baax jaafaay parce que ci camion bi am na ay teranga yu ci nekk ñu xool lan la ak fu mu jëm kaay gis nga xeetu berne bi nga xamante ni yëkkati nañ ko fas yéene ko yóbbu ci daara yi ñuy ñaan rek lépp loo xamante ni def nañ ko ci wala ñu ngi ko ciy sàkk suñu borom kàttanal leen doole leen ba luñ ci mën ren bu déwénee ñu mën ko lu garaw moom la waa ndogu solidarité defal donga daara yi lan nga ci wax sama naataango bi waaw kontaan bu baax a baax a baax euh, Lamine nga nekk ku baax nekk ku woyof saa su ne ñuy déggante di la bu baax ci sa liggéey bu rafet bi nga xamante ni yow yaa koy def euh, man nag bi ma fi ñëwee sànq yàggul waaye gis naa fi teraanga yoo xamante ne ndogu solidarité def nañ ko ndax ku ci nekk nga xam ni benn jaamu yàlla bu woor suba ba ngoon jot nga yëkkati benn tàndar jox ko xamoo lan moo ci nekk ci yiw ñu ngi ñaan rek bépp yiw boo xamante ne sàkku nañ ko ci suñu borom defal leen ci lu kawe seen lu ñu mën ren bu déwénee ñu mën lu ko raw en tout cas daal xam naa ne message la boo xamante ni képp koo xamante ni yor nga teraanga wala suñu borom mën a leen na ko lu lu jar roy la lu jar a bàyyi xel la ku ci mel ni Abdou Aziz Aly Ndiaye mm-hmm. ak tamit kenn demul ñu des Mhm, waaw ñu mel ne Aziz Ndiaye xam nga Aziz Ndiaye Cheikh Mbacke Gueye ñooñu xam nañ leen ci def lu baax parce que tey boo tuddee Aziz tudd tudd Baye tudd famille Baye aale bi tuddu li nga xamante ne ñu ngi koy def ci réew mi képp koo xamante ni da ngay jug rek saa su ne da nga leen di tudd ndax yaakaar naa ne bari na ñoo xamante ni seen seen seen seen dégg nga leen di dégg sax moo ëpp liñ leen di gis boo déggee ay ku mel ni ne Aziz Aziz léegi liñ koy gis sax ci dëkk bi bariwul bu weesoo programme yi nga xamante ni ñu ngi koy gis bariwul liñ koy gis bari na ci ñu mel ne ay baay ak ñu mel noonu mais en tout cas daal lu mën a xew mooy geste la boo xamante ni geste bu rafet la geste noble la geste la boo xamante ni képp kuy jullit mën ko te def ko. ñàkk ko mën te ñàkk ko def tamit. xam nga ñu lay jaajëfal baax. kafe gaa ngi noonu. ñëwal sëñ Bas ñu dugg ci kafe gi dugg ci waa kafe gi. kafe gi maa ngi leen di siyaar da faal naka la yéen a jàmm maa yéen am jàmm kan mooy jëriñu kafe gi <laughs> loolu la. <laughs> <laughs> yuuxul ah. kii nee na booy jëriñ bi yow dinaa leen laal yàlla bu nu sàkkee ñun ñëpp ci darajee Seydunaa Muhammad la borom lakka saada man yaateeg borom kama saada man ma daa borom wi lan bii si ruu ca gaaña dama bu ko jooyloo mooy Muhammad yow bu ko merloo mooy Muhammad bu ko xiifloo mooy Muhammad ngir yàlla bu ko merloo mooy Muhammad borom la ka saada man yaati Muhammad borom kama saada man madaa Muhammad borom wilaawu lan bi siiroo moo man ca gaaña buuru Medina ngir yàlla bu ko merloo mooy Muhammad yow bu ko dóoree mooy Muhammad waa ñun nag dañuy def lii di sant Serigne Touba boole koog di. ñaanal ñëpp. man maay aada géwél mbaay mu sëriñ Fallou Mbacke ragal féete day wàññi wërsëg aadaa ngi nii doomi géejawaay doomi ñaari fuur yi tàng jaruma jaay doomi nday Bada Ndiaye rakk Aziz Ndiaye naaru Khoudia Diop caatu Khoudia Diop mi ngi nii Bada waxal. Bada ay ca <laughs> waala mais ñu leen di fay bëggee di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal su ndogu solidarité bi te wax yi def ngeen bu rafet quoi parce que ñun ay jeunes lañ. am ambition kenn ku si nekk yaay liggéey di jàpp si dara. ñu dem ba trouver benn point d'entente mooy ñu jàppale taalibe yi ak solidarité yi. buñ paree taalibe yi yaakaar naa ñoo ngi jàppal beneen bis pour dem si prison yi. ak dem si jumaa yi dem si leneen leneen. bi na première édition la dem na si jàmm nit ñu ñëw nañu wuyu si nañu sponsor yi ñëpp ñëw nañu. ñu ngi sant ku si mel ne Zador jàpp na si bu baax ak Balaga King Ewel Cheikh Mbacke Gueye jàpp nañ si bu baax ñoom Modou Gueye di sant uh, Issa Ndoye Parigo di sant uh, Pro Auto Ndeye Touré Ndiaye jàpp na si bu baax di sant Baye Ala Ndiaye di sant Massa sunu taaw jënd na nag bu bari jox mi di sant Babacar di sant Baye di sant ñëpp ñu si jàpp waa biscuit di mbiyaa tamit ñoo leen sant jàpp nañ si bu baax di sant tam sama dem sama copain Demba waaw moom nit ku baax la jàpp na affaire bu baax. Pape Abdou Cissé tamit ñoo ngi koy sant jàpp na si Elimane Lam waaw jàpp na si bu baax aussi tamit ñi si jàpp bari nañ ñu ngi sant ñëpp di jox seen wàccuwaay di leen ñaanal quoi. nga woote ñu wuy si la mbooloo lan la Badou ak li ñu ne dañ koy jëm jox daara yi. Hmm, ci kaw gis camion bi. social la rek xam nga def lu baax moom yaakaar naa amul tànk ginnaaw tànk kanam la am te biñ ciy def tamit ñun dañoo waxoon ndogu rek mais buñ demee ba nga xam ne gis li xam ne mën na ndogu mën na reer mën na sax xëdd kon loolu lañ doon ñaan yàlla quoi Banjul dugal. Ah, initiative bi fan la fan la jógee xalaat bi ndax lii dafa rafet mu mel ni mbooloo mooy doole mais initiative bi fan la jógee xalaat bi. su ma la fenn wallaahi azim ba biñ toog nii fi lañ toog biñ euh, premier jour ko deuxième jour ko ñu toog fii di waxtaan war a football DSC sama mag xale ne ma école ñu organisé benn ndogu ma ko nañ ko def ci nañ toogee ñu woo suñu benn copain bu def flyers ne ko parcelle ñu benn jour ñu jàpp dimanche tey mu nekk bis bu rafet ñu continué ko ñu ñëpp eseti ko grand yi woo ñu tamit booy initiative bi nga am lu baax la ñoom ñëpp jàppale ñoom Aziz ak ñëpp ku nekk dugal soo loxo ba mu mën a yegg ci fii quoi. bi mooy première édition bi mooy première édition waaw bi mooy première édition bi waaw jaajëfal ñoo ngi leen jaajëf soit waay. ñëwal ñu xool jëriñu café gi kaay mu ngi noonu. gis nañu tey ñun ñëpp a ngi màggali Touba ngir banni Achimine gis nañu tey ñun ñëpp a ngi màggali Tiwaawan ngir banni Achimine waaw. ak sa sant bu baax. waaw ñi ah? maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi delloo ziar baax. kontaan ci geste bi nga xamante ne def ngeen ko euh, tey ñu ñëw fekk la ci table bi nga nga fas defal jaamu yàlla ñi nga xamante ne dañoo woor ci ndog bi ànd ceeg si sa jigéen ñu baax yi ban message ngay lancer. waaw xanaa kontaan rek di leen remercier tamit yéen tamit. loo xamante ne suñu borom moo koy fayal boppam benn boo ci def dalay fay téeméer ñuy ñaan nag at mi buñ at mi di ñëwaat mu dàq at mi ñu jóge te ñëpp fekke ko comme ni ñu booloo nii ñuy ñaan yàlla di ko fekke at yu bari di ko def di ko def ba suñuy sët ñëw di ko def vraiment daal li acte bu rafet la ñu ngi kontaan di ko rafetlu bu baax a baax a baax. ah depuis ci suba depuis si démb lañ fi nekk demb dañoo veillé ba 5 heures du matin tey tamit 6 heures lañ fi nekkaat te fas yéene nañu ànd ak nit ñi ba heure ndogu passé ñu nekkaat fi ba xëdd sax bu ñu bëggee. yan xeetu berne ngeen defal ñi nga xamante ne ñoom. waaw fii defar nañu lépp pour yóbbu ko daara ja defar nañu ay tufe defar nañu ay macaroni defar nañu ay ginaar lépp daal pour jox ko taalibe yi rek di ci jaamu yàlla rek di ñaan at bi bu ñëwee mu dàq rek mu dàq ren. bu ngeen wootee leen. ku leen xam-xam dëgg la waaw kontante rek parce que tamit woote ñu wuyu si la mun nga luye baas mun ngaa luye seen mais ay nit kenn mënoo kenn mënu leen a luye ndax olof Ndiaye nee bu nit ñi di wut alal wut leen nit ñi loolu mooy àdduna kontaan nañ torop wax dëgg yàlla. comment vous allez. très bien merci. Mikkola. Depuis quand tu es hmm. euh, vu, le, le, qu'on avait fait ici Très bon, très délicieux. Hmm. C'est quel message que vous, lancez les, les, les... C'est Ramadan. message. pour le Ramadan. Prenez soin des de autres et gardez votre cœur. tëkk ak moom laaleeg moom day xaw a metti je suis très jërëjëf. merci merci merci moi moo gën lu dul jàmm jàmm ko. Mm-hmm.

Stop!

yal na ngay yokk bi ngay yëg ko waaw jërëjëf waay waaw sama xol daa fees trop billaay mun ma wax sax ndax ndax bagage yi léegi lan nga ñuy lan nga leen di ñoom ay ndaw yu daan doon ñëw indil la teranga bi léegi xale yi yi yan kàddu nga leen di bàyyil ci teranga man kay maa ngi leen di ñaanal rek ci kanam yal na ngay yokk rek yal na yëg ko

Mbàkke Noreyni ak waa njabootam yëpp di gërëm waa Daaru Muxti ñoom Jili Samb ñoom Naziru Samb ñoom Naziru Samb ak ñoom Modou Fall di gërëm ñëpp di gërëm maire Aïda ma ca Atlanta di gërëm suñu yaangu ñëw di gërëm ñëpp waaw merci waay di gërëm jaar